daw len gaw abonné ji ci chaîne bu mag bobu di khidmatul khadim tv di chaîne bu am njëriñ ci dina na ci yoonu mouride batay man ngeen joko ak ñoom ci chaîne numéro service commercial 77 362 90 75 khidmatul khadim tv dal liggéeyal serigne touba rek moo leen tax a jóg فاخ وكنت bil marjani alayhi الرضوان والسلام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 noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di ndokkeel noo ngi leen di sargal ci weeru màgg wi nga xam ne ci lañ bàyyi ko kenn ku ci nekk def ci sa kem kàttan di ñaan yàlla mu nangul sunu jaamu yépp te jaare ji jéggal nu sunu bakkaar yépp bu nu ko jéggalee ba noppitam mu def nam baaxoo mooy soppil ko aw yiw wa ma salika àlallaahi bi asiis ndaje bii nag ndajem lislaam la ndax bis la boo xam ne séquñu ko kenn noonu rekk noo ko moom kon buñ fi daje génn jaamu yàlla gu toll nii war na noo waxtaanee sunu mbir li nu fi indi te bàyyi nu fi di ñaan yàlla ramadan bi génn yàlla na lakkaale lépp loo xam ne bii ab safaan la ci ñun te ubbi lu bunti xéewal yépp te mu bàyyi ñun jikko joo xam ne dañ koy weyewaat ba déwén waxtaan yi nag dañ koo baaxoo di ko def ngir di fàttalente fàttalente bi mooy àdduna day dox dañ nekk ci àdduna war a xam liy dox ci àdduna war a xam len lu nekk luñ koy moytoo ak lu ñu war a defit nuñ koy defe àdduna moom fitna rekk la baaxoo ak coono wante nag du tee ña baax ñi ngi baax ba léegi rek yalla ñu yalla boole ci ñoña aduna bi day mel ne day gëna bon jabanu judik gëna bon yu jëk jëk ndax ali yi yépp ñi ngi leen di fatali tollu koy aduna bi ak fi diine ji tollu xam bo boo aduna bam dekk do fi gis benn benn benn dëkk boo xam ne mi ngi atté wol islam dafay am lu mu jàpp rek muy ay mu tudde ko lislaam di ko attewoo waaye lislaam kenn attewoo ko loolu nag dana dellu ci mbooloo yi waaye dana dellu nag ci ñu mag ñi nga xam ne ñoo yore doole yi te yore baat yi te waxtu nekk nag Arabie Saoudite la ñu cité ndax dëkk boobu nga xam ne fa la Màkka nekk Madina du nekk fa yonent bi tëdd fa saxaaba yu baax yi nekk fa l'islam wàcce woon foofee dëkk boobu ñoo waroon a joxe exemple ci àdduna bi ba ñëpp roy leen te ba fa yàlla defee loolu ba noppi nag jox na leen kàttan jox na leen xam-xam jox na leen doole jox na leen man-man bu tax nu war a woon islam waaye nanguwuñu ko moo tax it yàlla fu mu toll yàlla fu mu toll di leen teg ay coono ak nattu ak i toroxal rek ndax tedd nga bi ñu waroon a am ci àdduna bi ñoo waroon nekk ci kanam Amérique tey ñoo ko ëpp mbooloo ñoo ko ëpp doole ñoo ko ëpp alal ba noppi nag ba noppi nag yonent bi wàcc ci ñoom wante waman arada an zikri fa inna lahu maisatan dankan yàlla de moom am na fayda ju toll ne lim la digal boo ko demut yow de loo yëkkati rek mu mu tibb karaj sotti ci biir mënoo ci dara loolaa leen dal nag juróom-ñetti at ñi ngi xeex ak ab kuréel bu tuuti sës ci ñoom mënuñ leen dara te loola yàllaa leen di fas yéene toroxal dogu ba fi mu toll nii juróom-ñetteet yooyu réew moomu di yeman mi ngi mi ngi taxaw ca seen ci digg réew ma di sàn di leen sànni ay jum jum yoo xam ne ma ngay dal ba njàpp ne dana mas a dem ba dali ca kaaba te mënuñ ci dara tey nag lu gën a garaaw loolu dafa am mooy Palestine tey àdduna bépp koy coow jullit yooyu ndeysaan yu néew doole Israël kàccoor bon bi di leen tooñ Amérique gemb ko jullit yépp ne pat biig ci guddi rek junni junni missile sànni nañ ko junni junni missile lañ sànni ci biir ci biir réew ma biig ci guddi bi rek juróom-ñetti fukki nit lañ ci rey ak juróom-ñeent juróom juróom-ñetti junni juróom-ñetti téeméeri nit yoo xam ne dañ leen te julli seen jàkka ñu fekk leen fa ñuy def xiyaamu lay ñu songu leen fa rey leen tasaar leen toj seeni kër julli yëpp ne cel di seetaan te julli yi di milliard ak genn wàlla mat nañ ko ci àdduna bi te alali àdduna yëpp ñoo ko yore kon nag ñàkka nangul yàlla moo tax yàlla seetaan lii te waxuma la de Arabie Saoudite Makka Pakistan Turquie Égypte ñeenti réew yi képp laa wax bu ñu mànkoo woon bu ñu mànkoo woon laa wax kon lee def Israël lee lee Israël def Égypte kon du ko mën def waaye kenn ku nekk yaa ngi toog sa ruq faale wu lislaam lislaam aw tur la rek tey ñu ngi di àdduna bépp ak jullit yëpp am am gàcce tey ñëpp ñëpp rus ñëpp rus parce que juróom-ñeenti million Amérique ñett téeméeri million jullit yi nekk milliard ak genn wàll ñu dëkk leen toroxal te mënuñ caa génn war nañoo xalaat seen bopp bu baax war nañoo xalaat seen bopp bu baax xam ne lii de fa muy mujj ak ñoom du baax. te caay-caay jii de Israël yi koy def waaye fii ñu àgg nag Trump mi fi bàyyi ko moo fa yóbbu moo tax jamono ba muy ba muy wate ca njàlbéen gi laa leen waxoon ne ñaan leen Trump bu mu yéeg ba ñaanut ba mu yéeg def caay-caay koo xam ne kenn mësu koo gis ci alamu islam yi may leen ñaan leen mu wàcc moo tax rek yàlla toroxal na ko wàcce na ko ci benn mandat te loolu Amérique ñaari ñaari ñaari président ñoo ko fi defe kon moo leen ñaareel. Biden Joe Biden moo fa nekk tey waxagul lu leer ndax mbir mii dafa waroon dafa waroon a dafa waroon a taxaw ndax conseil sécurité wax nañ ci. ñu baree bari wax nañ ci waaye lépp nañ bu nekkoon Amérique lee Israël def dana dakk waye ini mom day seetaan day setan nak ñaar ñi xex kenn di nga ka ci dess ngay da bay seetaan lolu ak sot lay tekki waye no ngi ñaan Biden Joe Biden su fekke ne mbir mi daf ci laal dara nek ci suuf di dimbalé yéefar yoyu la dalon Trump lu ko raw yalla nako ko raw ndax gis nañu ne mi ngi tabul di lawal ak góor jigen di ci force rew yi ba suñu réew mi Sénégal ñu ngi ko fi jéem a dugal ba ñi ngi def ay tappale defe ne mën nañoo fexe ba jàllale ko waaye du jàll mukk jërul jéem jërul sonn ak ngóor jigéen du law ci Sénégal mukk ci àdduna tukki ba ba tukki booy boo ñu bàyyi joxel bu baax a baax kon lislaam ji de foofu la toll néew doole rek te néew dool ñoo ko teg seen bopp yàlla jox na leen kàttan jox na leen lépp li ci war kon lu ci lu ci des ci ñun la dese waaye du ci yàlla pétrole beeg lépp ñoo ko yore waaye tey Amérique moo leen gaw moo leen moom moo leen Amérique lañ gën a wóolu bokk jullit kon islam bi foofu la toll lépp yàqu conseil sécurité doo dégg kenn mennam Erdogan mennam Erdogan ngay dégg mu yëkkati kàddoom di wax di soow wala fi président de la république bu Sénégal mu yëkkati kàddoom wax ci parce que Palestine dañoo dañoo takkoo ak Sénégal yàgg nañu yàgg nañu ñoom moom sax jiite woon nañ ko su Sénégal gi jiite woon nañ ko conférence islamique kenn déggu leen dara xewut waaye nag war naa yëkkati kàddoom ndax ba mu xew ba mu ba xewee ca France ci Charlie Hebdo de fii la jóge woon nag dem ba mu demee naan nu nu xaw ma nu mu koy waxee ci kamana dem nag naan Charlie Hebdo ci ci wë wë ñooñu nga xam ne ay saay-saay képp lañ buñ defee luy lu toll nii l'islam te nga jiite quatre-vingt-quinze musulman ci ay jullit war ngaa yëkkati sa kàddu bañ dégg la kon noo ngi ko ciy nag du gudd ci juróomi tomb rek laa koy def bu njëkk bi mooy sëriñ seen bopp war na noo wax ci seen biir. ndax nuy nak ci lañ bok am nañ ci droit waye tak der yi nga xamni ñoy police yi war nañu wax ci seen bir ndax am nañ ci droit nak ndax nu no leen fi tek ngir ñu sàmmoonu waye docteur yi nga xamni ñoo nek ci hôpital yi war nañu wax seen bir ndax nak ñu dañ leen fi tek ngir ñu tàmmal suñu wër gi yaram journaliste yi tam war nañu wax ci ñoom ndax ñooñu war di jot ci xabaar te xabaar yi dafa nekk war a nekk xabaar yu dëggu. politiciens yi nag moom ñoo waroon a jël lépp moom mu jeex parce que nag ñoom ñoo yore suñu mbir te it yoon yi jaar kenn xamul. sëriñ si diine tumuranke na diine jaaxle na diine xamutu fu muy jëm te diine de lebalu leen lii kenn ku ci nekk de diine teral na la. teranga jo xam ne ko am fu ci diine nga waroon a wàññeeku teraanga jooju nga delloo ko diine kenn wu diine dara kenn diine wu diine dara sénégal gi buñ fi nekké 95 pour mu diine am benn baat benn taxawaay mënu ko am ba waxuma dara way gis mané gis weer wo woor ba wo wori sax julli yi mënuñ ko te dara téwulen ko lu may ñàkk a mànkoo ba mën a am baat tey jii bu fekkoon ni dañoo mànkoo woon ba am baat dañ leen tëralal loi boo xam ne bii loi boobu ci la sukkandiku ba buñ neetee weer yu feeñ ne ñu ne weer yu feeñ ne buñ ñu ne weer yu feeñ waaye di xëccoo yow amoo baat cim réew kenn tegu fenn joxuñ la benn esthétique amul loo doon jéemoo ko kaas jéemoo dara nooy def ba lislaam am doole luma ngay ji jéem a xëccu aw weer bañ naan ñett ñetti président lañ ko def ñoo koy jiite sëñ bi ñi ñu ñàkk bopp ñetti président ñoy jité seentu weer yi weer yi ñëpp ko mëna a séentu ñëpp ami bëtt amu fi commission dara ñëpp ami bëtt juma ju nekk da ngay séentu weer bu fay ñu xam amna lu nekk ci biir luñ waxu juyoo gu bari gi nga gis nak bu len defee ne yàlla du yalla juyoo gi du yalla de kenn ku nek da nga bëgg siiw rek amna lo bëgg amal ta xam nga ne ci juyo gi nga lañ lay xamé ba xam yaay kan nga mën taxawal li ngay taxawal non do ni dof weer feeñ naag weer feeñu da sañ buñ ci di xuloo am lu nek ci mbir mu lool nak sëriñ si ñoo may dindi yalla sagal na leen jox na leen baat nañu nañu nañu wañ loxol gouvernement bi bu fekke ne am ñu am loi tam ñu defal leen bo conseil supérieur islamique bo xamni moy tim loi yi conseil supérieur islamique boo xam ne mooy tiim loi yi bu assemblée bi wateetee ba noppi loi boobu balaa jàll dañ ko yót kilifa yi diine yi ba ñu walidee ko buñ ko walidee wut du jàll loi loolu lu yomb la seen loi yi ñuy tëral ñoo ko tëralal seen bopp rek du dara te yéen lii ngeen yore yàlla leen ko jox kon sëriñ si nañ dellu si waat seen bopp xam ne yàlla teral na leen association islamique yeeg gaa yi ngay gis ñu yëngutu yëpp kenn ku nekk dangaa am intérêt booy xeex rek waaye du yàllay kese bu doon yàllay kese benn bis mën nañu koy régler ko liñ bëgg ci réew mi dana am te kenn mënut a mu am. wante nag bu fekkee nii la ñuy bu fekkee nii lañuy doxe doxee wallaay gars yi nga xam ne day beneen culture lañ yore yoree ko réew mii dañ yàggawaat suñ kaw di ñu nappaajin bi leen neexee te duñ ci man kon nañ dellu siwaat seen bopp ndax nag mag ñi def nañ li waroon def de. ba ñëwee mu jafe xool nañ lañ waroon a xool stratégie yi ñu waroon a jël jël nañ ko ba taxawal nañ li ñuy taxawal ba soppi nañ àdduna ba teg ko seen loxo waaw nun nag mag ñi dañuy liggéey Sëñ Tuubaa yi lim def ba dëkkam bii mel nii mburu dañu ko ca tàll ba lépp ñëw mu teg ko suñu loxo ay doomam ñëw fii mu dox baax si ba ci ba ci ñi fi des nii ñu fi des ana luñ def ana luñ def dañuy toog rek ñu barkeb Sëñ Tuubaa bi nit ko nuyu su jootaloo ko mu mer bo toge ju bo toge ci ko tok su nga mer boko waxe nga do sa morom way yoy yep amul solo li amon solo moy ñu def ñu def tajdiid suriyatan tayyibatan tujaddidu nahjan nabiyal mustafa tajtaydu lolou lañ leen di doye waye li nga xamni mom lañuy wone ni kenn ku nek di wone ma ma ma ma ma ma gën sa morom may li may la te te amul nit ñi du dof ñu ngi xool di xam ku dox njëkk xam nañ ko ku doxut xam nañ ko lii Sëñ taxaa def daal laa xam mbir bu dikkee baag say loxo la nga yéene war a def daal di cay nekk ndax lee muy def de bu fekkee yàlla dimbali na ko ci Sëñ Tuubaa far ko ci murit yi far ko ci ba mu àgg dana bari lu ñu doon naxaat loo xam dana dañ waaye nag ndax ñi ngi koy jàppale ndax ñi ngi koy jàppale te loolu mat naa xool te nag noo ngi xippi suñuy bët di xool yàlla lañ yàlla lañ gëm yónente mooy suñu yónente sëñ Tuubaa mooy suñu wasiila ku jaar ci yoon ñu xam ko ku fi jaarut ñu xam ko koo xam ne kii da ngaa jàpp ne barkeb sëñ Tuubaa bii nag lekk ak naan dang la ak sol say mbubb ak say def def say kër yu rafet wut say oto bu fekkee dangaa jàpp ne loolu dong la yow de dégg li wérte wóor wooy mérétoo sëñ Tuubaa di la boole ci suryetan tay suryetan tay batan tu jaddiku noonu mu walaa bale fii nag ñi la walaa bale Tiwaawan ñi la walaa bale Njaasaan ñi la walaa walaa la Laayeen ñi la walaa bale Kawlax ña fa nekk ma ne nañ taxawaat takk seen digg yi la leen seen bàyyi ak seen maam yi bàyyee woon ñu eh, amélioré ko bu baax ñoom itam ba mën a taxawal loo xam ne lii dana dëppoog seen jamono te li dëppoog suñ jamono mooy looy taxawal dem ba assemblée ñu ñu ñu wote ko ay loi nga jaar ci kaw luwaay sukkandiku ci ba def li nga bëgg dem def waaye waxi kese du sottal mbir kon fofu rek la ci yam tak deri boy boy boy boy boy booy bëgg gis nit ku rew ak nit ku xamadi ak nit ku ta joxe cër ak nit ko xam dañ koy magal ta du magal kenn nit ko xam dañ koy wormaal ta du wormaal kenn nit ko xam dañ koy moy ta du moytu kenn ngir sa salaire buñ koy fay par weer bo bëggee gis ku mel nonu gisal ab police mbaa gis ab gendarmerie parce que liñ gis ta diko xol mooy gis nañ ne ñi ci ëpp ci ñoom am na ñi ci ëpp du ñëpp nag ndax am na ci ñu ma ci xam ñi ci ëpp ci ñoom saa buñ nit nuñ koy toroxale rek moo nekk seen xel. te lii may wax kat ñëpp a ko xam saa buñ yow même amal dëgg ñàkkal dëgg buñ jàkkaarloog yow maanaam ci seen kanam yi rek jëlee lay tàmbalee di la terroriser yow di la boo boo gisee ni lay def dong kanam yaag ni ñuy waxee yow képp ñi nga xam ne kii ab terroriste la koo ci dugg ci bureau boo fay jógee sa biir da ngay say tànk day laxasu jànni te yoo xam ne yi kenn xamut lan la lii xew bëkki démb ci tuubaak gii xaw ma président bi ngi koy dégg xaw ministère de la force armée ministère de l'Intérieur ñu ngi koy dégg lii xew ci Touba gii bu delloo xeweti jàppale na lu ma lu ngeen jàpp ne du am rek dana kilifa gu nekk ci këram di ko jub ñëpp xam ak juba ak mbaaxam doon doon doon kilifa ci dëkk bi sëriñ bi nga ne danga am koy seet amoo teeylu dem fekk ko këram dajji këram fekk ko ci biir néeg ba dóor ko yeew ko génn ko ci biti def ko lu bon loo xam yóbbu ko ca commissaire ba dem ba àgg ne ko damaa juum loolu loolu loolu loolu doy na waar su fekkoo ne loolu dafa doon lu bees loo xam ne lu bees la ñu ne dañoo juum waaye yéen fii ci couvre-feu bi gis ngeen nit kuñ fekk ci biir jàkkaam génne ko dóor ko ba xaañ gis ngeen kilifa koo xam ne gi daa ci këram bëgg jëm ci jàkka ji ñu dogale ko yanu ko dugal ci biir bi di yóbbu gis ngeen fii nit ñoo xam ne bii dañ leen di fab sànni ci biir oto yi di leen dëgg te di leen maase di leen def yu bon yoo xam ne kenn xamul lan gis ngeen fii kilifa guñ ngi jàpp mu leen wax ak ñoom ñu naan ko si kilifa gu mag ko sax buñ ko jàppoon nii lañ koy def xam nga li ñu ñoo bon ñii ñoo bon taxabat yi waaye ñi leen di jox ñi leen di jox baat yi nag ñooma ndax nit ki bala nga koo jox baat mu yor sécurité am réew day xam réew ma da xam kooku mooy kan ndax sa da gis nga saa bu ñu la waxee ne sa ba moom lañ fal moom lañ fal chef moom moom lañ fal chef de canton booy boo yaru say bagage xam ni bu xëyee yow lay jëkk a def cee bari ñoo xam ne bii nag ay mécontent lañ mécontent lañ bu ñu leen defee ay gendarme wala ñu def leen ay ay ay police li ñuy def mooy kilifa gu baax ñu gis mécontent googu mu leen pousse bopp buñ luñ ko mën def ci ak toroxal ak ak doyatal danañ ko def te lii xam nañ li ma wax. kon nañ xool ñi ñuy indi fii ak niñ leen di tànnee nañ xool ñi ñuy indi fii ni leen tànnee mas ma am fii koo xam ne sama oto laa yebal ay jigéen ci nekk ak ay gone. ak dundu bu jëm ci daara bi mu demee ba fii ci panel ku ñu wax jàlloo jàpp ko bi ma ko jotee dama ko ne waa jàlloo jàppe woto bi mu ne ma woto bi dafa am problème ma ne ko ah waaw mais man maa ngi ko jënd këyit yëpp mat na mu ne ma dafa am problème ma ne comme dafa am problème léegi téyel euh, téyel carte gris bi ak ak ak ay aju yëpp comme dafa guddi nii te mi ngi taw te ay dongaa ci nekk ak ay jigéen baal ñu yóbbu mu mu lànk ne ma ba ma ko waxee ba dafa ma ne man doo soo sëriñ ah ma ne ko waaw yow lu ci dugal dugalal sëriñ xanaa sant Mbàkke wee tax waaye man dama laa wax ne bàyyi leen ñu yóbbu ñu ñu yóbbu ca daara ja wàcce bagage yi ak gone yi jigéen ñi ndax da mi ngi taw te daa guddi. noonu la lànkee ma woo pré représentant kii représenté si si si su si si mu taxaa ca ca ca ca ñii bi mu dikk wax ko mu lànk. nga xam maire bala mu juwo mu abal ma woto mu ñew dindi bagage yi même biñ ne bagage nañ ko wacce duggal ko ci biir kos bi sax dafa lank te mi ngi taw ak jigen waaye tamit nag koku mérite na ñu diko ñu jox ben ndomba tank manam ku ñaké nonu yërmaade même bu bu mu dul sëriñam du ma daraam mais ay goné dong mu jant so muy taw mu yor ab dundu kër gi mu ko yobbu nekk ni te japp nga woto bi lolu lolu may len gis ngeen ko ni di jikko yu soufey yi lañ yor waaye nag sant naa ci yàlla ndax ba mu ko waxee ba noppi ñi muy liggéeyloo da ca am ko Baay Faal la mu dee ma ne ma sëriñ bi bàyyi fi waa ji te seeti kilifaam ba ma seetee kilifa ga ba ma ba demee lu ma waa ji defoon ci caay caay rek kilifa ga defal na ma teraanga junni tol muy Assane Ndiaye la tudd defe na ci nga ngi new lu ma defoon ci caay caay moom waa ji rek kilifa ga defal na ma teraanga junni toll ma ne ko ak ñu mel nii lañu war di jox baat takk deri yi leen seen bopp xam ne am na adresse bu ñu leen wax bu bon boo xam ne xamu yéen a ngi koy dégg ak biir dañuy wax ne policier du bàyyi dóor ma ne ko daa xam ne ki muy dóor du fayu rek policier du bàyyi dóor ci muy dóor daa xam du fayu rek waaye ponkal boo xam ne moo la man fop nga di ko jàpp di ko dóor mu dela seetaan nga defee ak njàmbaar la xam nga ne du njàmbaar da nga am da dalaa sédd cër ngir der bi mu la jox ak baat bi mu la jox yow yaa ko séddu cër motax nga diko do wa xam nga ne bu doon yaa mom ci mbedd wor na do ko do loolu dafa mat xam am na der gi def leena mandi def leena mandi buñ ko takke manam ñoom ñu mandi ñoom dañuy defé dal ay yalla yu ndaw lañ wallahi duñu yalla yu ndaw nañ xaar rek tay de kilifa yi ñi fonto de mbolem ko ci xamni ki dem nga ba am ak problème kel doon fay salaire de ci kilifa yi ngay dawaat ci lapp seen gënaaw gi ñu dimbali kon na ci président wax lu garaaw la de loo xam ne du lu tuuti foofu laa ci yem docteur yi ma ne clinique yi bari na de clinique yi bari na lool lool lool ku moom clinique yi yéen docteur yi yéen a ko moom dañ leen a fay ngir ngeen liggéeyal nit ñi. ngeen bercé di clinique di fayu nit ñi lo xam mënuñ ko am bo débé ci boo demee ci ci ci ci hôpital ba ñu jox la rendez-vous boo xam bi bo xaa rendez-vous bi dé nga dem ci clinique ba boy xaar wi di dé té ñom ñoo fa ne daan lay joxoñ seen clinique rek bo demee fay analyse yaangi bëgg ray nit ñi radio yaangi bëgg ray nit ñi yëf yaa bala bala bala balañ laa faj dañ li li nga amoon dañ koy jël bam jeex takk ba dootoo am loo fajoo ñu door a jublu sa mbir bu ko defee dee rek ngay def soo munta soo munta soo munta jote ci ñoom nga dem fekk leen seen i clinique fay leen loolu gouvernement bi war na cee wax nag nit ñaa ngi bëgg a dee amatuñ fañ fañ fajoo amatuñ luñ fajoo amatuñ ku leen faj te lii ma wax de gouvernement war na ci bàyyi xel de ba ki dem dama am ak wéri dem hôpital principal bi ma demee dañ ma dañ maa wax ne bala ngaa dugg da nga joxe téeméeri junni yoo xam ne da koy teg fii moom ma génn téeméeri junni joxe téeméeri junni yooyu nekk naa fa ba jóge fa ab esprit joxuñ ma ko ci benn esprit <laughs> te noonu lañ lekk xaalis ba waa nag ki nga xam ne mun a am fukki junni nag moom nu muy def ba ma duggee ba ci biir. Eh, maam Thierno maam Thierno maam Thierno Dieng mi nga xam ne mooy directeur bi ma ne ah naa woo ma euh, directeur bi waaye ndax comme maa ngi fii ci biir daal man fay naa ba pare naa ko woo mais gis nga ba ma ko wooyee ba jot ko ne ko maam Thierno ànd foo rek mu ne ma kii ma ne kan euh, ne ko ah, man dama laa bëggoon a gis maa ngi hôpital sax xam nga lu ma ci teg ba waxee ba doon ne ko waaw ah, mu ne ma peut mu ne ma peut-être àllarba peut <laughs> <laughs> waaw ma xam ne ginaa man lay wax lii naka nag ak ku néew doole koo xam ne ki yow mënoo dugg foofu boo demee yow noo def doo dee peut-être alarme yow ñu teg la fi ngir nga war a dimbale doomu adama yi ñu ne si bureau ku ne ci biir hôpital bëgg laa gis xamoo lu lay doyee ah nga naan ko peut-être may leen gis ngeen ko nii de ku ngeen ci yaakaar ba defee ne yéen la fi nekkal nekkul leen seen bopp leen nekkal kon nañu xoolaat yëf yi xam ne. yoon wi ñu jaar baaxut wii du jëme Sénégal kanam da koy delloo gannaaw rek journaliste yi xoolaat leen seen bopp waay jaxase gi bari na lool tappale yi bari na lool xabaar yi wéeru yi bari na lool in jaakum fasiqun bi naba in fatabayyanu an tusibu xawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma faaltum naadimin yow xabaar buñ la jox yéen yi lañu sukkandikoo defe ne yéen a ngi wax dëgg xabaar buñ la jox boo ko toppee ba ci biir xabaar ba dëgg ab intérêt ca nekk boo xam bii moom ngay daw ca biir ba tax nga jaxase doomu aadama yi ba nekk ci nekk ci nekk ci fitna te ko teg yow journaliste bi ah kon journaliste nañ ñuy wax xabaar yi ñuy joxe boo ko toppee ba ci biir da ngay dem ba yàgg nga xam ne ñii kat mérétoo wuñ métier mu tedd mii mérité wuñ ko de parce que wax ji mom ñu ci ëpp boko topé ñu néew ci wax dëgg ñu ci bari seen intérêt lañuy wax nëbbu ko ci biir nak bala nga xam duggu ba ci biir kon journaliste nañ xolaat seen bop xolaat doxine wi xolaat ni ñu joxe xabar yi tey di wax dëgg te yalla tax parce que ñom bu bu njàqee rek aduna tukki ndax li ñuy wax nit ñi dañ koy gëm te buñ ko gëmee dañ ci sukkandiku te buñ ci sukkandikoo dem ba ci biir dara du ci doon dëgg kon nañu xoolaat seen bopp xool ni ñu joxe xalaat xabaar yi ñu nekk ci internet bi nañ xoolaat seen bopp nit wax yi waxam ma noppi nga seet diggante sa la ca neex nga ne ko ketteet daal di koy publier yàqal ko addunaam te fekk li ngay wax dara du ci dëgg tegoo mbir ma loolu man daa xool nag te fi ne fi mu ne saa boo demee ci internet bi da ngay gis wax joo xam ne ji wax ja Dan yon sèd lè yon tè nè rè, yon kipi konon lè, yon publè publè kon, dan lè kon yon lè. Sou kwa te fè gen nan degè lè di wak wè. Te fèk bo te glou an lè di wak, sa fan balan. Lol nèk, lol nèk lò matè bayè chèllè. Kon kwa lè lè lè sè yon meti bi. Petit opan nèk, mwen yon politik sè yi. soo bëggee gis ab workat boo bëggee gis workat képp laa wor ak wor bi ngeen xam nit moom mën naa mucc ci ay nax waaye mënut a mucc ci ay wor xam nga wor moom kenn mënu cee mucc wor moom ko wóolu rek boo gisee workat xoolal politiciens yi yéen ñi ngeen ci xamoon xool leen leen déglu leen kenn ku nekk ba nga ko xamee lam daan wax ak li muy wax démb ak li muy wax tey ci ay mbëgg jëm yu soq ku bi jaaw kooku bu la waxee ne li muy wax li may wax baax na nga gëm ko daf laa neex rek politiciens yi yéen a ngi bëgg a yàq Sénégal jikko yi ngeen di wane gone yi di ci teg bët suñ leen ci royee ba mu Sénégal gëpp a nit koo xam ne kii wax li ngay def doo def li ngay wax wax aw fen ak wax wax aw fen ak dara nga yemale day nek ci bir mbolo wax fa fen wo xamni ne wi bu subaa balaa ngoon nga weddiwaat ko ci menen mbolo do baye xel ña nga waxaloon ci suba loolu ku man loolu bu la say jabo royee bo lëgg gis wi rew sax da nga problème <laughs> kon politicien xolal leen sen doxin doxin wi ñaaw na lool ta bon tay da ngeen defe nit ñi dañoo amul xel am na ñuy xel dañ ci mënu dara waye nit ki mom boko waxe mu dañ nga waxat ko mu dañ nga waxat ko mu dañ boko waxate bu ne waawit dafa am kër sa way xamne day dañ gouvernement bi tàmbali ji Macky Sall Moustapha Niass doyen di siis sëñ Bassirou Gueye yéen ñett yi di am ngeen ay responsabilité yu rëy ci réew mi ndax àgg nañ ci fi mu ne politiciens yi yàq nañ politique ba ba xam ne lépp lu xewati lu ne yéen ñett lañ koy jiñ yéen war ngeen cee setal seen bopp nag ba nga xam ne dañ xam ne li ñuy wax du dëgg ndax kat lii fi xewoon bëkki démb kat coow laa ngi ne cobbay waaye kenn ku nekk am na noo ko xalaate ku nekk nag xam nga am jël ci dëgg sa yoon da cay nekk wala sa yoon man caa nekk nag waaye ñëpp xam dëgg gi gone yu ndaw yi sax gi lii nag li muy jur baaxut li muy jur baaxut mooy da di àgg ci nag lépp lu ngeen yëkkatee di nit ñi contre ko te du ngeen ci man dara da ngeen dem ba wax dëgg sax dëgg bu ngeen ko waxee nit ñi weddi ko te du ngeen ko man dem da ngeen ko mën a régler parce que yéen a kon assemblée bi ragal len yalla loi buñ fi tëral mu jall de yéen a ko jàllale waaye da ngeen ko waxat ci kanam yalla de da ngeen ko waxat ci kanam yalla de loi bo xam de yak yàq diine li wax de yak ngor bo xam de yak jom nga ne mu woor la dañ ñi xam ni li baxu bëgg ab salaire tax nga waté ko bam jall ñu jaarale ko ci kaw dooma da bay wallahi da nga taxaw ci kaw yi kanam yalla wa kulluhum yawmal farda bu karaga da nga xam loo ko jëndee won jaru te yéen a loi nak nag te yéen de bu ngeen juboon damaanu te def seen liggéey loi balang ko balang ko wati da nek loi bu leer nañ ni bo xam du lor kenn bu la ko gouvernement wataloo bañal bu la ko opposant wataloo bañal su ngeen ko waté ba nopi jox ko exécutif bi nga xam ne moy mooy Macky Sall ko nguuram te yéen leen di contrôler te woor leen ne bu ñadé jàddee ngeen teg leen ci yoon bu wawa ñom duñ mëna wacc yoon wi loi yéen a koy tëral jox ko jox ko jox ko justice bi justice bi di àtte ngeen di ko ko teug loi yi te loi yi te yalla teug ne loi ba noppi ngeen lank ne loi yalla bi du fi teug tëgg di loi tek ko ci kaw nit ñi leen def leen neex ak nit ñi xamuñ ci xam nañ ci dara lañ leen di jural nak moy won leen gannaaw rek kon xolaat leen seen bop te xam ne doxin yu nit ñepp ko xam nak ku wax ak ku waxut do nga fi nek way ñepp xam li xew ta pala yo def lu mu lu mu jan jan jan jan jan ni nga ko xamee rek la ko nit ñi xamee dañ cee mënu dara waaye bis dana ñëw nag ñu wan la ne xam nañ li nga doon def bàyyi leen xel ci lii opposant bi mere président bu mu leen tax a jàdd ci yoon woo xam ne du yoon président ak nit la kuñ fal rek waaye nit ñee leen fal nag yéen itam nit ñi ngeen bëgg a jox su président bi jaaree yoon fa la alhamdu bu jaarul yoon itam yéen na ngeen fexe ba jaar ci yoon waaye am réew kenn du ko taal président de la république ñoo ngi lay sargal ci bis bi ndax yaa jiite réew mi di la xamal nag Sénégal sonn nañ Sénégal sonn nañ ndax yii fi jaar yëpp bi mi laata ñëw daa fekkoon ñu sonn yii ñëw jaarati ji ñu ngi dëgmal nawet bi nit ñi amuñu jiwu nit ñi amuñu engrais nit ñi amuñu matériel nit ñu am ñu dund su fekkee ne daa nga def social lu baax la de waaye ren ji lañ gën a aajowoo nag kon dimbaleel nit ñi yërëmal nit ñi te jàppale leen boo ko defee yàlla dana yërëm yàlla dana dimbale te jàppale la irhamu man fil ardi ko man fis sama noo ngi nuyu réew mi yépp di siyaare sëñ Muntaxa yàlla na ko fi yàlla yàggal réew mi ni bu amee jàmm mooma ma bëgg nag ñu bàyyiwaat ko xel bu baax a baax waaye mais jàmm day moom fu jàmm am day bu dul woon ak moom ne tey réew bi tas na kon nag bu dul woon moom réew bi tas na tey defe naa ku doon umpale kuy sëñ Muntaxa umpale dara jaam umpale tolluwaayam defe naa ne lii jàll war na la moom kii mooy kan te moo kilifa yi diine yi mbokk réew mi yëpp la ko bokkal ñëpp ko nangul nu it nangul nan ko yàlla na ko fi yàlla yàggal noo ngi noo ngi noo ngi nuyu mbooloom yëpp noo ngi nuyu ilimante di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi te taxawaay bi rafet na lool liñ séentu woon ci moom lépp gis nañ ko sant nañ ko bu baax gërëm nañ ko yàlla ko yàlla gërëm te te te te te dimbale ko ci barke Sëñ Tuubaa bokki taalibe yi nongoogu nañ waat nag nag góorgóorluwaat nag am nañ kilifa bu ko mate nañ fexe ba mat doon taalibe bu ko mat wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. daw leen gaaw abonné ji ci chaîne bu mag boobu di Xidmatul Xadim TV di chaîne bu am njëriñ ci dina rawatina ci yoonu murit ba tey mën ngeen jokkoo ak ñoom ci seen numéro service commercial 362 90 75 wala 70 858 54 23 xidmatul Khadim TV Dal, Liguel Serigne Touba rek moo leen tax a